Bismillah.

ci biir activité nag daal di koy tuutil toroxal ko ma ne la gis nga wàllum justice fii ah. amatul benn daraja suñu justice su du dara léegi tous rien du kilifteef du crédibilité du dara Ibrahima de magistrat ci tribune yéene kaay yamu ca ndaxte waa ji nee uh-huh. xam ne woon ab yorin goo xam ne te bi ñu gis daal waaw du dara lu alalu askan wi lay dal daal di koy yàq suñu alal di ñu amakas néew ci réew yi ndool yi lée nga xam ne dañoo yori bor ba maana day taali gars yi jël ko yàqate ko lépp ci wàllum politique rek moom suñu bopp di wàllum liberté gi ñu amoon ci ay fukki at yi ñu génn lée waaw daal dinañ koy jaxataxatee de fi nekk ni la kay conditionnel boo faree ci man daal yaay bañ boo farul ci man lu yàlla xam doy na magistrat bi ne suñu wàllum démocratie bi lée ak yorin gu sell di bonne gouvernance a doo ni coupable kon nag ñëpp a war a jug toutes les de la nation dañoo war a ci seen bataaral gi wax ci tolluwaaye réew mi garaaw bi nga xam ne kon situation réew mi garaaw ko fi nekk ni le la kay ne gisee gouvernement Macky Sall bi waaw boo bëggee dégg dëgg nag ko ndomba de Macky Sall de fi mu nekk ni dañ koo wër ndomba dëggantaan njaay di wér gi yaram ak i gëreewam ba ci wàllum justice ca gëreew liggéeykat place meilleures de travail waaw waaye tamit day le gouvernement ba signé woon ay atu atu yàllaa ngi ni la day nga wàccoowul moom magistrat ba Ibrahima Hamidou Dem yemu ca ca tribune yéen a kaay na day ragal gi ci boppam moo war a tuxu dañoo ñeme ñeme lii réew di dund magistrat bi dem ci yéen a ma jambal jàngin ne seen intérêt ñoom politiciens yi intérêt réew mi soxalu li mu jur tey xam nga mooy lan ah. ñi nga xam ne ñoom ñooy dogal day xamuñu tekki woon doom ba tànkam ca constitutionnel Kéba Mbaye waaw parce que dem dani les sénégalais sont fatigués lii la Kéba waxoon Ibrahima Demin moom la wax ne sénégalais fi nekk nii yàq nañ leen toroxal leen ndax dund seer gi lee nit yi amuñu liggéey le chômage chronique tax ñuy dund tey ñàkkub kaaraange xamadi goo moo am ci di indiscipline mar d' Italie wàllum guerre di corruption salte bi ci réew mi kenn waxaale wuli mbiram termine yéene kaa ne lii gii ñi ngi ngand nganduloo yaay ci juróom benni atu yàlla yi nga xam ne Macky Sall na ko ci nguur gi naan émergence yokkute wàllum koom-koom waaw jalawaa FAO dik ak programme alimentaire mondial PAM ak union européenne lëkkaloo comité bi nga xam ne nag mooy xeex wàllum békoor di sécheresse rapport bi ñu génnee tey barkaati démb lañ ko génnee le mars wane Sénégal xiifa ngi boole ko ci liste rouge bi liy raamte nag wala googee du fa gaaw a génn enquête yéene kaay ne ma ne xoolal ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum yaru ganaar ah, ñoo ñëy maara day tàlli seen ci xortu gerte de parce ganaar yi nga ne kon dañ koo téye woon bitim réew na dootu fi duggati day dootu yëkkati dara dana commencé waat di ñëwaat ci biir réew mi libération yi ne kay mi day am na lu fi ñëw koppar gu bare bare sax jóge ca Europe waaw ay milliards yi milliards ñu taw de junni ak ñaari téeméer ci ay milliards ña nga bés awo boobu ci fukki fan lay toll la solo yéene kay ne bi dox ci bi de ak docteur waaw juróom ñaari ñaxtu yu docteur yi ba saafara lu juróom ya ñëw waaye loolee teewul day tribune yéene kay nee na France marte gàcce nga xëy gis nit ñi nekkee diggéeyu ñu deful jàngalekat yaa ngi ni lee ci mbedd gi yaram gi moom daa feebar la amoon akas ni ko ya te yàlla dogal gi ci lu jëm génnee ba léegi ni lee trak ba mujjul fenn enquête yéene kaay ne trak de waaw nguuru Sénégal gi doon sàkku ngir alalu Karim Wade ga nekk ca bitim réew France ñu indi ko dey nguur ga ñàkk na de définitivement maa la ko wax maître El Hadji Amadou Sall bokk ci ay avocat wu Karim Wade ci enquête yéen kay nee na Macky Sall daal bu arrièreul wallaay danañu ko dunduloo musiba de fii ci mii ba keroog élection yi di leer li leer ba leer l'observateur nee na Idjatou Diallo dey kii sàcc waaw ah! ne démb la ko ma njëkk fay sama salaire bu njëkk alaaji Malick Gakou ne Mamadou Diop day mosul jóg di ma conseiller Khalifa Sall ne bu ma dëgëree këcc tey ak ci wàllu politique yi Mamadou kon bokk na dem naa ca lamb ja tribune soox ne Gris Bordeaux ne kon kilifa yi day mën nañoo jënd ne combat bi ngir tegal ko nit ñi en ci télé bi bu am Ibrahima Faye xam-xamam màcc kon ci wàllu woowee gis nga lii ca 1974 laa lay wax nii lañ ko njëkk a def ca Amérique la boxloo diggante Mohamed Ali ak Frazier combat bi nag ñun dañ cey ay millions yi millions laa la nit ñi dañ dem jëndi paas du doon direct tribune soox ne Gris Bordeaux day waaw daal di waxal Gris Bordeaux mooy wax tey Balla Gaye lay waxal waaw pour ñu xeex box <laughs> alaaji Abdourahmane Ndiaye Falang day am na lu mu waxoon ci bëre dóor boo paree ma ne la alaaji tëjal